Muhammad moyi sunyuyonin kuko bagu billahin bagu nanyula Sayyiduna Muhammad moyi sunyuyonin kuko bagu billahin bagu nanyula kuko banko manadon banyu nanyula Sayyiduna Muhammad moyi sunyuyonin kuko bagu billahin bagu nanyula kuko banko manadon banyu nanyula Niko bagu diko roinyun ku ko bañ royuloo ko yorom nañu la ñi ko bëgg di ko roy ñun ñee nañu leen ku ko bañ royuloo ko yorom nañu la moom daal ki am jàmm Sénégal muy kii gis lu bon te noppi mais boo nee yàlla waxut lii ñu ne ah yàlla saalix avant ko yàlla yónni daa maandu dafa toog dëkk bi waxul kenn dara parce que amul ndigal mais bi ko yàlla yónnee mu ne yàlla nee na ba lii def leen lii luñ ko wax eh yaa saalix qad kunta fiina marjuwa atanhaana xoola luñ ko wax saalix yow ku ñu amoon yaakaar yow xale bu maandu nga woon mais léegi nga commencé naan ñu yàlla nee kon ku ne yàlla nee na rek maandu woo fu nit ñi defee caaxaan nga ne caaxaan la maandu woo kan moo maandu Sénégal mooy ustaasu suppu kànja bi nga xam ne lépp dagan na ci moom ku xew la rek mun a yaana ci diine mbokk yi ñu mel nii ñoo yàq diine islam borom xam-xam yoo xam ni lépp dagan wallahi minhum xarajat fitna wa ilayhim taud fitna bi yépp ñoo ko def ustaas yi nekk ci rajo yii di ut li neex këru diine yii boo defee émission këru diine bu nekk nga tegi wayam tegi caaxaanam tuddee ko diine islam naxoo kenn sa bopp ngay wax ndax waxaloo muhammad de waxaloo diine de waxaloo islam de ndax lii ngay saxal islaam saxalu ko lii nga bàyyi mu jàll islaam bàyyi ko mu jàll ba nga amee xam-xam borom bi nee na ku am problème nga saa jàngee diine ku am problème la ndax amoo droit nga noppi danga war a wax la tubayyinunnahu linnaas wala taktumuuna borom bi nee na il faut ngeen jël seen responsabilité yéen borom xam-xam yi yéen ustaas yi il faut ngeen wax même bu ñu leen raayee wax leen bu ngeen ñëwee ma fay leen ndax allahu wa rasuluhu axaqu an yurduuh in kaanu muminin yàlla nee na man ak sama yonent maa gën a yey ñu kontaan bul tànn nit ñi kontaan bul ut li ci poosu nit ñi bul soxla xaalisu nit ñi bul jàpp ni boo nee yàlla nee na kenn du la jox bul jàpp ni boo nee yàlla nee na sa wërsëg dagg bul jàpp ni boo nee yàlla nee na kenn du la faale déedéet yonent yi dund nañ ba dee lan moo nekkoon seen chiar lan la ñu xàmme woon yonent yi mooy in ajriya illa ala allah noonu la yonent yi doon in ajriya illa ala allah yonent boo ni woon nii mu ne hee man fayu yàlla laay xaar seefaa nga may jox daa tuuti euro nga may jox daa tuuti dollar nga may jox daa tuuti xam nga man lu ma bëgg fayu yàlla in ajriya illa ala allah borom xam-xam bu xaarul lii nag préparel nga toog nek ci dëkk bi nek escalier bu ñuy jaar di def lu bon nga di ko saxal bis bo deewee ba dekki di nga xam li taxoon borom bi jox la xam-xam bo pour nga wax nga wala laka sirrun inda allah بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى